ñu xam na damu la walla cant la mais boo fa jógee toroxlu ñu xam ni cant la boo fa jógee rekk rëy wane lu ne ñu xam ni damu la xasan mm-hmm. ibnu thabit raziyatu halikin raziyata yawmin mata fihi muhammadu lu ci nit man njël benn xudaybiya te mbokkam yooyu jóge màkka di ko di ko won cawte ndax amuñu leneen luñ ko won cawte la ko jugloo du xare dafa namm màkk juróom-ñaari at a ngi demu fa mu namm ko di dem lakk lu ay mburoom defar lu ay gëléemam yóbbaale ay hadiyaam fésal ko ba ñu mën ci jot ba xam ne xares ba ñu ko dogalee am na sax ñu màndu ñu dem ba ca waa Makka ni leen ki ñu gis xarewul dafa namm dëkkam di ko seetsi wante xarewul bu xare woon mu ñaaw bokkoon na ci aada Quraysh bu ñu bokkee gi yow te miin la am na lu ñoo def pour won la ni seen intimité gi yow moo ca agg te mooy noonu ñuy def di laal sa sikki waaye ba mu tàllalee sikkimam gis na ku mu xamul kooku fël ko mu toll tàllalati ko kooku fël ko mu xam ni ki muy waxal du mbokkam ma woon waaw ki chef de mission la muy Urwatu bnu Mas'ud la ko sidna abu bakar wax ni ko maral taatu laata mi nga yaakaar ak ni mu bare kersa dañu wax ni Quraysh yépp moo ko Abdul Muttalib ñoo ci ëpp kersa waaye seen kersa ñu ne xel ko lal ak pas-pas ñoo ko niroole ñoom ñaar yonent bi ñoom la amoon euh, bokkoon na ci yitteem bu ñu ko woree ci Xudaybiya mu soog a wone dooleem moo waral fatxu makkata fathu waaye ba mu demee waxu leen am naa junni gëléem ci madina am naa junni taati tàndarma ci madina am naa téeméeri junni dinaar ca madina am na téeméeri junni dërëm ca Madina waxu leen loolu daf leen ni li ma yàlla wax jaare ko ci Jibril jottali naa ko wala jottaliwuma ko loolu rekk la doon wut bañ a wor yàlla loolu rekk la doon wut hal ballaxtu ay naam ballaxtu wallahi moo tax ñii tudde ko xajjatul wadaa ñii tudde ko xajjatul balaax ah. ba mu ci jógee nag fekk na am na bés waa màkk jaaxle ci mbiram ndax àndandoo muhaajiruun yi ak al ansaar waa Quraysh àttanuñu ko ñu ne Abdullah ibnu Ubay boo tasee diggante muhajirin ak ansaar loo bëgg ci ñu fal la ko dinañ la ko fal mu daldi tàmbali ñëw ci waa ansaar ni leen ku waxul dëgg wax fen gis nga kii bu jëkkee rek ñibbi bu jëkkee rek ñibbi ci leen ko répété ba ñoom seen xel commencé di ñaaw bët ci yow ma xune yonent bi amoon na jikko bu xare ba xéewal génn ca xare ba bu amee ñu ñëw won ko ni ko xéewal bi lii maa ko moomoon ci waa Quraysh daf leen koy daldi delloo loolu nag mu ni leen përëw banque bu jëkk kee dellu ñu muñ ko muñ mënuñu ko muñ am ku ko ci dab wax ko mu ni ko hum yarjiuna bil ghanaim wa antum tarjiuna bi rasulillah alal laa leen jox ñu yóbbaale màkk waaye yéen maa ngi ànd ak yéen tamay yonent bi waaw kër sax amu ko mag ndax bëgg matal wëllëreem ak waa Ansaar ansaar yi ba nga ca muhaajiroon ya ba nga ca ansaar yi ba amatu ci doole muy neexal yahud yi ñu di ko ca dimbale ba nga xam ne nag affaire baa nga bëgg ñaaw ndax yemoo wone ni bëréw la contre yonent bi bu ko waxee nit bu ordineer nii rekk daf koy mën boroom xel rekk la koy wax koo ko jëppi ko yonent bi nag am na psychologie bu ko yàlla séddee ba mu gisee ni njaxas mi sore na ci muhajirin yi sore na ci lansaar yi daf leen di jóg leen lu dem te bu ko masaan wax rek ñëpp jóg xare ji ñoo xam bu dee leneen ñoo xam mu na ñëpp jóg topp ñëpp jóg topp mu topp désert bi ci tàngaay bi ndeke jikko ju ñaaw fitna rekk ko mën a wàcc jikko ju ñaaw fitna rekk ko mën a wàcc nekk yonent bi xam na ko ñu topp ko ci naaj wi moom du sonn du xiif du mar ñoom ñuy bëgg a dee ba kenn ku ne boo bokkee ci ansaar fàtte nga ni ca nga bokk boo bokkee ci muhajirun fàtte nga ni ca nga bokk ñu alku ñoom ñëpp ko ànd loolu rek la leen doon doy raxas leen sang leen ca désert ba désert rekk mën a former fa ma koy sañ daan naa ko di wax ida kaana min aadati sahra ida kaana min aadati sahra an tukawina al batal wa tukawina al hakim wa tukawina zahid al abid fa innaha ay sahra لم تكون ولن تكون أبدا هؤلاء الثلاثة في رجل واحد مثل ما كونتهم في رجل الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Des chefs religieux, des chefs politiques, des chefs de guerre. waaw ndeysaan fa in taku وقالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير الترحم سيدتنا آمنة موكو جكرم عبد الله dañ ko daan def nan tagg seen jëkkër am na doomu dex yi ba léegi ñu ko def maa ngi amoon sama benn wëllëre ku ñeme ndox ba lab ca wut ko fu nekk ji suñu ko wante soxnaam yi dañu bokk ci ñi loolu di seen aada daan sol seen malax fa rek ñëw taxaw ci góor a géej gi di ko tagg ak di ko woo yaakaar rek daatul manaaya daawatan fa ajabaha وما تركت في الناس مثل ابن هاشم xam nga baatu diw alku te mooy faatu na dangay defe ni ñàkk teggin la waaye fekk na ku dul nit ku rëy duñu ko ko wax nit ku rëy du dee dafay alku nit ku rëy du dee dafay baatu alkande foofu dee la fiy firi waaye dañuy wone ni ki dem mbër la la in halaka alxaajul mumajjadu malikun la in halaka alxaajul mumajjadu malikun tijaanu bnu bab la in halaka alxaajul mumajjadu malikun wa saara dafinan innahu gayru haliki غدا تاركا من كان في المجد مثله وما مات ميت تارك مثل مالك Tijaan ibnu Bab moo ko wax nee na bu ñu nee Xaaj Malik dee na ma ni deewul buñ ko suulee deewul ndax ki mu bàyyi gannaaw a tax suul nit ba noppi dem ci kër ga fekk ko loo ci mën Muttalib mooy Shaybatul Hamd xam nga daan na ñuulal boppam nangami siècle gannaaw loolu ñu ni loolu rëcc la ñuuleel sa bopp ñu ne riche la تكامل الغش حتى صار بالشعر gis nga tubaab bokkul mayu liggéey weñ bokkul ak mayu jikko tubaab mën na bricoler wante kilifa gu mel ni yonent bi rekk a baax ci ñoom nga dañuy bind di xas suñu jigéen yi ni dañoo xeesal ñoom dañu daan weexal maa ngi ceeg téere dama xamatul ci ñi ñu tudde woon ci jamono Giscard ay nouveau philosophe kan moo ko ci bindoon walla jigéen jële ñuy wax Marguerite Yourcenar parce que dama bari lu may seet seen téere yi te léeg-léeg ma xamati ku ko ca wax wante nee na tubaab dafa daan weex euh, pour nga mën a weexal foog nga nekk doomu buur parce que li weexal di jar kenn mënu ko jënd euh, xaw ma seetaan film mais film yooyu ñuy woni buur yu jëkk yi ñuy tegoo ay perruque perruque yooyu ñu daan tegoo dana dem ba dafa teeñ te du tax ñu wàcc ko gis nga seen tuba yooyu ñu daan takk ci suuf di ko takk ci seen ndigg nañ ko tàyyee tekki ba dafa ënn gis nga ci yooyu jamono pour ouvrier mën a sangu ci duus bu municipalité bi bu Paris ba xolam sedd foog mu liggéey ñetti weer saleeru ñetti weer moo koy may mu sangu ci douche ba xolam sedd ci dex rekk fu ñu wët foo xam ne teguñu fa ku koy wattu walla ci tepp teppal waaye sangoo douche kooku borom barke rekk ko daan def boo dee ouvrier bëgg ko nag sa salaire ñetti weer lañu lay laaj ak àggoon nañ ci coono foofu bu ñu dul woon jàmbaar xamuñu seen bopp amuñu ne réew mi ñoo ko moom xare ko ba mu deñ kon ba léegi deñ weexal bi itam dañ ci daan boole luy def couleur bu rose ci seen lex ndax moo gën a neex buur yi mais doomu buur rekk a mën jënd poudre bu roos boobu mais jigéen ñi itam am seen pexe bopp di jël lu mel ni fuddën nëbal ko ba mu am sax yu tuuti ñu di ko taf ci seen lex pour bu ko màttee mu xonq àggoon nañ ci moo wax la ko ñi ci dee kenn xamul na mu toll pour wax la ni yëf yi léegi la waaye démb nag demewuloon woon noonu moo tax civilisation mi ngi juddoo ci culture culture mi ngi juddoo ci diine moo wax la ko bu ci kuppeek la mu juddoo rekk alko culture bu wëcc diineem yàqu civilisation bu wëcc culture yàqu loolu moo am moo tax boo demee crise yi ci biir tubaab yi ëpp na attanatuñu ko mat na juróom benn weer ci gannaaw ñépp di tàccu japonais yi ni ñoo man ci àdduna léegi ñu ngay xaru rekk pour wax la ni yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqat lu ci nit mën ndax yàlla wërsëg la wax bokkul ak alal yarzuqu man yasha almaalu walbanuuna zinatu alxayaati dunia moo tax wërsëg la wax moo ko ameel ñëpp dinaa wax ne wolof jàng na lu ne waaye xamagul dara parce que li mu jàng mënu ko firi waaye ñoo ëpp philosophie ci kaw suuf ma dégguñu ko looloo tax ñu lànk ñoom wolof wutalaguñu tur wutalaguñu tur loolu kon naa leen ko jënd euh, jàkk sëriñ Babacar Sy benn ñu tudde ko alal alal du waxu wolof waxu arab la mooy xalaal wala ñu tudde ko am am am am philosophie Isa bnu Mariam buñ ko mësaan jox àddiya ni ko am mu ni am yolu yàlla yow itam yow mi ma jox àddiya ci yoolu yàlla anko ñu ne am am ñu ne xaalis xaalis waxu rab la mooy lu sell wante du wax wolof wala ñu ni wërsëg maanaam wër na sëg waaye duggul ca bàmmeel xuruju rasul ndeysaan minal madinati ila makkatal mukarrama wa rujuu rasul min makkatal mukarrama ila al madina wa wafaatu ba mu jógee màkka dem la ne ah sama yaram diis na waaye dama si biro maam ñëpp ni ko nuyut danoo si biro tubaakal la waaye fekk na coono ya rekk loolu dañ na ko ci kaw suuf léegi la mu doon dox sotti na la mu doon dox sotti mu feebar dinañ ko indil ndox am na benn téere tubaab bu tudd loo ki géeri ba jàng ngeen ko la de waaw kay loolu lëf la ndox dina faj si biru waaw almaawu yashfi shifaan la mathila lahu defoon naa ci xasida yàgg na ku dëkk désert ndox rekk koy faj ku dëkk désert ndox rekk koy faj ndax ndox amul ndox rek koy faj gis nga yàlla xikma kenn mësu ko gis malaaka laaj ndax tuufaan géej gee ko def dafa mel ni boo demoon Bagdaad dañu la woon fa mu tàmbalee moom tuufaan waaw ci masjidul Kufa wallaay foofu la Jibril rëkk ndox ma toj moom la tuddee tuufaan ndox mi matale fépp yonte yàlla noox rekk ak gaalam ak juróom ñetti fukki nit ya mu nekkal waaw ba ndox ma demee ñu nga wàcc ca wetu Saam am na fa benn dëkk bu ndaw ku fa dëkk tamaaniini yu lañ lay tudde ndax juróom ñett fukki nit ñooñu ñoo wàccandoog Nuux ca gaal ga dëkk fa baax da tuufaan waaw xaw ma lu ko tubaab yi tudde du déluge la xaw ma waaw waaye juróom ñett fukk ñu gis nga taxawuñu naka la ndox ma tabarkal la fenn di rekk te yàlla xam na ni kenn ku ci ne ci ñoom am na lu mu defoon pour mu sang leen nag mu tuur leen mara day taali peste malgré coono bi ñu daj pour dimbali noox ànd ak moom ba ba gaal gi teer mu xëpp leen peste lu dul ñi jóge ci ndiggu noox ñoom ñëpp ca berse ba la ñu dee wa jaalna durriyatahu humul baqin moo ko sañ sañ-sañ rek ah ah moo ko sañ loolu moom rek ko sañ tabarkalla adduna lii mësu cee jóg mukk mukk mukk mukk crise mësu fee jóg mukk ak nu muy mel rek façon crise bu ne am na ci àdduna waaye rek ku yàlla musalin nga mucc waaw ku yàlla musalin nga mucc kon yal yàlla dinu musal rek na yàlla dinu musal yal yàlla dinu musal yal na yàlla dinu musal wallaay ndeysaan na yàlla dinu musal ah tabarkalla njabootu jàmbur ngeen ah lu di leen yéene jàmm ndax ragal seen kilifa waaw di leen yéene jàmm ngir ragal seen kilifa waaw ah, surtout jàmbur ngeen ñu di leen yéene jàmm ngir ragal seen maam waaw di leen yéene jàmm ngir ragal seen maam tabarkalla tabarkalla loolu rek la yàlla eh, def leneen amul leneen amul tabarkalla tabarkalla bëgg nañu ci jataay bi la simple na yàllaa na cofeele na tabarkalla la yal na ko yàlla mottali na yàlla mottali ko dañu bàyyi xel ci yëpp rek bàyyi xel ci yëpp tabarkalla ñu jàng fatiha bu sell ñu jàng falax ak naas ñetti salaatu ala nabi kenn ku ne ñaanal ci moroomam yàlla faj aajoom ci zahir ak ci fati yàlla ko yàlla def sëriñ ay